في سار وعلم في البار ربنا تكريمه بنا بنا لدم وجات وجه لمن تكريمه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 waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahu min kulli karimin akramu man amahun qaada lahu takarrumu aslim lahu kulla kan imaani wala simin ihsaana lirrahmaani waajixu bi sukri bila kufraani tukfa xisaabahu maa niiraan alhamdulilahi lazi hadaana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawlaan hadaana allah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baal àq te leen di baalu àq di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom defal ko fanu gudd waan ak wér ak wérle ba lépp loo xam ne naal na ko ngir liggéeyal ko waajuram mu tedd wa Seexul Xaddiim suñu borom defal ko ko ba mu liggéeyal ko nam ko bëggee ak mboolem jullit yépp ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal xalifa général de Baye Fall suñu borom defal ko fanu gudd waanda wér ak wérle ba lépp loo xam ne yéene na ko liggéeyal maamam ju tedd ja maam seex Ibrahima Fall suñu borom defal ko ko ba mu liggéeyal ko nam ko bëggee ak mboolem jullit yépp bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaanal borom rajo bi di Serigne Mouhamadou Diop Thiat mi nga xamante ne si ni maanaam moo taxawal jëmm ji muy rajo bi nga xam ne jëmm la joo xam ne jëmm ju màgg la jëmm ju tedd la mu am yéene lool ci liggéeyal islaam moom dañ koy ñaanal moom it suñu defal ko lépp loo xam ne yéene yéene na ko liggéey ci tool bu màgg bu yaatu bii di tool islaam lépp lu ci yéene liggéey rek suñu borom defal ko ko ba mu liggéeyal ko na ko bëggee ak mboolem képp ku ko yéene bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di siyaare magam ju tedd yi nga xam ne moom la ñu doon nuyoo leen léegi xam ne tey fi lay fi lay yandu moom it noo ngi siyaar bu baax a baax di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax di ko ñaanal moom it suñu borom defal ko fan gudd waan ak wér ak wérli ak xiiwal yi baree baree bare bi barakati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di siyaare eh, Moustapha Thiam moom suñu xarit suñu wëllëre ak mboolem personnel rajo bi rajo bi ñoom ñëpp rek ñoo leen siyaar bu baax a baax a baax mu mel ne baaxoo nañu sax alxames bu ne ñu ñëw fii tànn benn tomb waxtaan ci ak yéen maanaam ki leen koy faral di defal mooy seen mbokk al oustaz Hassane jóob di waxtaan ci diine ak tolluwaayu jamono nga xam ne fu jamono ji toll rek maanaam diine da ci am xalaat moo tax ñu tànn tomb boobu ñu tànn thème boobu tuddee ko diine ak tolluwaayu jamono. maanaam tey nag mu mel ne maa ngi dalal sama genn gan goo xam ne moom yaakaar naa du fi gan moom miin na fi moom moom kër gi miin na ko bu baax a baax a baax. muy al oustaz maam Thierno caam moom mi ngi dëkk moom it Touba Asalem 2 ci eh, wetu maanaam ci boori magasinu Baye Dame foofu la dëkkee maanaam li ko diggante maanaam gaara Sudaaru ak kër Cheikh Sidi Muxtaar maanaam foofu la magasin Baye Dame nekk maanaam foofu la dëkkee moom nag ñëw na fi ay yoon yoon ba ci koor gi sax ñëw na fi waxtaan fi waxtaan wu am am solo ba ci màggalu Daaru Musi bi mu ñëwee tamit bi mu jubee ñëw na fi waxtaan fi waxtaan wu am solo ci maam Thierno. kon mel na ne kon maanaam maanaam waxtaan yi baree baree bare kon jaar na fii def ko kon yaakaar na moom kon moom kon du fi gan miin na fii kon al oustaz maam Thierno moomu moom la ñu dalal tey ñu fas yéene tànn benn tom waxtaan ci waaye mu mel ne bala ñoo wax tom bi ñuy waxtaanee tey dama koy jox moom mu nuyoo kon ñu soog a wéy ci tom bi nga xëyee ci leen fas yéene waxtaan kon maam Thierno tafaddal alhamdulilahi nahmaduhu wa nastainuhu ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربي اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbooleem ñuy déglu rajo Bawal Média FM 88 point 5 ñi ngi jiital ci suñu kàddu sant yàlla di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Touba bu baax di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi yëpp ba li mu yéene ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp ci yoonu sëriñ Touba yi ak lislaam bi ñu man koo def ni nga xamee ne noonu lañ ko bëggee al oustaz al asan maa ngi lay nuyu di la siyaar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu technicien bi waaye di nuyu kilifa kër gi muy sëriñ du Diop Diak ak mboolem personnel bi liggéey ci rajo bi yépp di leen siyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di siyaare sama mbokki dëkkandoo yi ma bàyyi gannaaw ak sama waa kër yépp ak samay soxna yépp di leen siyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mboolem sama euh, parents d'élèves yi ak sama élèves yi yëpp di leen siyaar bu baax ak sama soppi yi nga xam ne surtout ñi nga xam ne ñoom laa bokkal jàkkay sëriñ Soxay bu ñu fay bokk di daje di jaamu yàlla ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay al oustaz Assane fii man duma fi gan dafa mel ne ci kër gi laa bokk kon ñëwaat naa sama kër euh, di ñaan yàlla rek Euh, lépp li nga xam ne am ngeen ko yaakaar ci man ci waxtaan wi suñu borom sottil ko te defal ma xam-xam bu ma ko mën a jàllale ak euh, làmmiñ bu leer bu ma ko mën a jàllale bismillah jërëjëf alustaas maam Thierno Thiam mu mel ne kon nuyoo na sëkk matal na sëkk kon noonu nga ko waxee rek la kon kooku mooy alustaas maam Thierno Thiam di jàngalekat bu mag a mag a mag boo xëyee jàngalekat bu ràññeeku la nga xam ne ñu baree bari ñu ngi koy bàyyi xel foofu ci Touba Aslem 2 ci wetu magasin Baye Dame féete penku kon ñu baree bare kon xam nañ ko foofu kon jëmm la joo xam ne kon ku yomb para santé la kon al oustaz maam na mu mel ne tey dañoo tànn benn tomb boo xay ci lañ fas yéenee waxtaan tomb boobu nag mu mel ne maanaam jëmm la joo xam moom lañuy ñu bëgg waxtaanee dafa am jëmm joo xam ne moom lañ bëgg waxtaanee tey jëmm joo xamante ne si ne jëmm ju màgg la jëmm ju tedd la jëmm la joo xam ne maanaam foo dem ci adduna bi rek. maanaam da nga fa fekk jëfam jëmm la joo xam ne maanaam foo xoolee ci àdduna danga gis jëfam jëmm joo xam ne ku déglu ci àdduna bi da nga dégg jëfam joo jëf na ko joo xamante ne si ne maanaam waxtaane ko mooy waxtaane jàmbaar waxtaane ko mooy waxtaane ku gëm yàlla waxtaane ko mooy waxtaane ku bëgg Serigne Touba waxtaane ko mooy waxtaane ku wóolu Serigne tubaa waxtaane ko mooy waxtaane ku fonk Serigne Touba jëmm jooju nag mu mel ne moom lañ fas yéene waxtaane tey mu nekk jëmm joo xamante ne si ne bii jëmm jooxee ñépp naw na ko ñépp fonk na ko jëmm la joxe maanaam moom lañ fas yéene waxtaane tey jii jëmm jooju nag mooy kan mooy koo xamante ne bii maanaam bisam dafa jublu si jëmm joo xam ne bisam daa jublu si di waaj ñëw ñu koy séentu muy dimanche ji nu jëm incha allah bu soobee yàlla jëmm jooju nag moom lañ fa yéenee waxtaane kooku mooy kan kooku mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Xaadimu Rasul Cheikh Abdoul Ahad ibnu Xaadimu Rasul moom lañ fa yéenee waxtaan ndax kooku waxtaane ko mooy waxtaane jàmbaar kon jëmm jooju ak oustaz maam Thierno kon dama lay ñëw dama lay jox nga ñëwal nu ci jëmm jooju waxtaan ci kooku nag géej la goo xam ne moom mën naa ne moom fu la neexee rek tàbbil fu la neex duggal fu la neex duggal jëmm ju mag a ngoog ju tedd ngoog léegi nag yaa xam fooy duggee dangay dugg ci maanaam ay waajuram ñooy ñan ak kañ la ganee jamono ak fan la ganee jamono ak biñ sax biñ paree nga soogoon nag ñëw na ci ay jëfam nag yoo xam jëf na ko waaye al oustaz maam Thierno jëmm yooyu daal maanaam géej la goo xam ne mën naa laa bàyyi rek nga tàbbi ci biir géej googu. al oustaz ki ñu waxtaane mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ibnu Xaadimu Rasul moom la fa fas yéene waxtaane waajuram jigéen it xam nga mooy soxna Mariama Jaxate kon al oustaz maam Thierno kon bisimilah tafaddal jërëjëf al euh, yaakaar naa jataay bi yërmande yàlla dana fi wàcc ndax fépp ñuy fàttalikoo jàmbaar rek surtout nit ku baax suñu borom dafay wàcce yërmandeem ki koy fàttaliku it suñu borom day fàttali wàcce ci moom yërmandeem sikru saalihina tanzilu rahma te suñu borom dafa am ci way gëm yi ay góor yoo xam ne lépp lu ñu kóllërante woon ak moom dëggal nañu loola kóllëre booba matal nañ ko ba mat sëkk am na ci loo xam ne nag dana feeñ fii ci àdduna bi ñëpp di ci teg seen bët am na ci loo xam ne suñu borom ñu koy néggatiku ba ëllëg yow mal xiyam te ñuy gëm yàlla ñëpp Euh, di jëf lu baax ñoom ñooy nit ñi gën ci nit ñi mooy nit ñi gën a baax ci nit ñi ñooñu nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne mooy ñetteelu xalifa sëñ baax dafa bokk ca ñooña amoon taxawaay boo xam ne bu ràññeeku la ci ak gëm yàllaam ci ak wóolu yàllaam subhaanahu waaye nekkoon ku toroxlu moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekkoon ku ragal yàlla nekkoon ab jullit nekkoon koo xam ne ku doon rafetal la ci lépp lu muy def walla lépp lu muy wax ak lépp lu muy jëflante ak njabootu sëñ Tuubaa gi ak lépp lu mu daan jëflante ak jullit yi moom Seex Abdul Ahad Mbakke loola daf ko daan jëf ci ak rafetal ci ak sellal moom Seex Abdul Ahad Mbakke waaye dafa nekkoon ku dëgg ku dëgg kenn ku ne xam ne Seex Abdul Ahad Mbakke moom bu ñu waxee ne ku dëgg la baat la boo xam ne baat la bu euh, xam ko ci Cheikh Abdoul xam ne loolu bokk na ci ay jikkoom bokk na ci ay melokaanam yoo xam ne daf ko daan dund moom seex Abdoul Ahad Mbacké ci bi mu nekkee xalifa Sëriñ Touba ak laata muy nekk xalifa Sëriñ Touba waaye moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa nekkoon koo xam ne ku am diine la te daan sàmm diine ku am diine la te daan sàmm diine waaye dafa nekkoon ku tabe moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekkoon koo xam ne ku nooy ab xol la maanaam ab xolam dafa ëmb yërmaande sunu borom waaye dafa ëmb yërmaande ci mbindeef yi maanaam sunu borom daf ko duyog yërmaande ba mu fees dell waaye teewul ci loolu def daan jubbanti nit ñi def di leen teg ci siraatal mustaqim waaye kenn ku ne xam ne ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nit la woon koo xam ne ku dëddu àdduna la ndax ko xam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xam ne jëmm la joo xam ne yu kaw sax bëri wutoon lu mu ko daan def li ëpp ci ab toogaayam ak lu mbooloo mi bëri bëri ak lu taalibi yu bëri bëri Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ab toogaayam ci suuf moo ci ëppoon waaye ku bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye ku bëggoon Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul la waaye kan mooy Cheikh Abdoul Ahad borom xam la woon boroom xam-xam la woon goo xam ne dafa wattu woon xam-xam moom Cheikh Abdoul ahar Mbacké waaye wattu gim ko wattu woon dafa rafetoon maanaam dafa nekk wattu goo xam ne daf ko jekku woon dafa mokkaloon alquran daf ko mokkaloon jekku alquran ci côté bu nekk waaye mu nekkoon ku bëgg alquran moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye nekkoon ab diglekat buy digle ci lu baax nekkoon ab terekat buy tere lu bon waaye nekkoon koo xam ne ku leer aw làmmiñ la ba muy wax lépp a koy déglu képp ku daan dox sax da ngay taxaw ku ku mu fekkoon nga tëdd da ngay jóg duju ndax kàddoom goo xam ne leeroon na te dëggu moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye ku mënoon a muñ la ak lu mu tar-tar ak lu mu métti métti dana ko muuñ ngir mën a liggéey liggéeyu seexu Ahmad Bamba bi radiallahu anhu waaye dana ko muuñ ngir mën a teg taalibe yi ci siraatal mustaqim waaye dana ko muuñ ngir mën a sàmmante ak yi nga xam ne moo dox digganteem ak julli ñi moo dox digganteem ak taalibe yi waaye nekkoon ne ku rafet ay wax moom seex Abdoul Ahad Mbacké ku rafetoon ay wax la moom seex Abdoul Ahad Mbacké waaye ku dëgg woon ci ay waxam la ay waxam wax ci dëggu la woon moom mu nekkoon ku tedd nekkoon ku dund sunna waaye ku dund xaqiqa moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiallahu anhu waaye fonk woon fonk woon lool nag ay magam yi nga xam ne laata muy nekk xalifa ñoom ñoo ko jiit woon muy ku mel ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak Cheikh Mouhamadoul faadal Mbacké mu joxoon leen ciir bi nga xam ne yelloo woon nañ ko topp ci seen ginnaaw di déglu seen i ndigal di bàyyi seen i tere moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye ba bi mu nekkee xalifa it noonu la sàmme ay rakkam sàmme ko njobootu Sëriñ Tuubaa gi warmaal leen teg leen ci euh, palace bi ñuy yellool waaye jox leen cër bi ñuy yellool moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawaay bii amoon na ko moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci njobootu euh, Sëriñ Tuubaa gi waaye amoon na ko it ci taalibe yi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax Njaareem ci atum 1914 junni ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak ñeent ci miladiya tolloog ñaar fukk ak ñett muy 23 ci weeru korité ama bal sasin mooy 1332 hijriya waajuram mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu waajuram jigéen mooy soxna Mariama Jaxate ni nga ko waxee mook soxna Faat Jaxate ñoo bokk ndey ak baay euh, lama bu nga xamee ne Cheikh euh, moom Cheikh Abdoul Ahad mbake gane ne jamono Sëriñ Tuubaa dafa digal Euh, sëriñ Cheikh Mouhamed Lamine Diop daga dagaaniyu ak sëriñ Amsatu Jaxate ñu jàng téere bii di fustu bi sarfel asanaat tifli ko ca noppam waaye sëriñ Touba yëmut foofa dafa wax ni Cheikh Abdoul Ahad mii am naa ci moom yaakaar euh, xam naa ñu taxaw foofu kon. ah jërëjëf al oustaz maam Thierno kon loolu nga leeral kon mooy li la maam laaj nañ la ko kon leeral nga Cheikh Abdoul Ahad maanaam mooy kan. ak fan la ganee jamono leerango mi ngi ganee jamono ci njaareem 1914 mooy dëppook at mooma mi ngi ba tey mi ngi ganee jamono ci ñaari waajur yu tedd yu mag waajuramu góor mooy seexul xaddim si Ahmadou Bamba waajuru jigéen mooy soxna Mariama Jaxate kon wax nga kon maanaam wàllu ah, ni ma ne alxuraan alxuraan dañuy wax ne kon sëñ Tuubaa moo ko dalal moo ko tàmbali alxuraan waaye bi mu ko dalee alxuraan da koo jël jox ko ñu yaayam sëriñ xamsatu jaxate mu jàngal ko alxuraan ba mokkal alxuraan ba mokkal alxuraan mokkal gu rafet ñu wax ne ginnaaw bi mu mokkalee alxuraan moom si Abdul Ahad maanaam nag mu daal jàng nag mbooleem fànni xam-xam yépp nag maanaam mu wër maanaam wër jàng mboolem fànni xam-xam yépp ba géeju ci xam-xam yépp moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Cheikh moomu kon ni nga ko waxee kon leer na kon maam na kon dama lay jox nga waxaat ci maanaam Cheikh Abdoul Ahad maanaam ab liggéeyam nag jëf joo xam ne si Abdoul Ahad Mbacké jëf na ko maanaam mu nekk ab liggéeyam ginnaaw bi mu jotee ci xilaafa gi ci 1968 ah bi mu nekkee xalifa ci 1968 bi mu jotee xilaafa gi moom Cheikh Abdoul Ahad ana yan jëf ana yan liggéey moom la moom mooy yi nga xam ne si Abdou Ahad maanaam xam nañ ko ci liggéey boo xam ne liggéey na ko kon bi mu jotee xilaafa gi ci 1968 ah ba keroog mu wàcc liggéey ci 1989 ah nga xam ne kon lim nekk ci xilaafa gi yaakaar naa ne kon ñaar fukki at benn yaakaar naa yor na ko xilaafa gi diir boobu nag mu yore xilaafa gi nag maanaam ay ab liggéeyam nag maanaam maam Thierno bon doon leeral maam liggéey boo xam ne si Abdou Ahad liggéey na ko maanaam lan ak lan ak yi mu doon tere yëpp ak yeexee da ko da koo gis ci biir dëkk bi nga xam ne Seex Abdul Ahad lépp lu mu aaye rek suñu borom moo ko njëkk a tere ak sëñ Tuubaa ak yonent bi waaye lépp lu muy digle rek dafa fekk suñu borom moo ko digle ak yonent bi ak sëriñ tubaa kon li jëkk maanaam bala ñoo jàll fenn maanaam si Abdul Ahad bi mu jëlee xilaafa gi maanaam ay liggéeyam daal ay jëfam daal dañ bëgg maam Thierno nga waxal nu ci moom Cheikh Abdoul Ahad bisimilah. xam nga Cheikh Abdoul Ahad Mbacke euh, doon nañ gën a continuer sax ci fi mu jaar ci am njàng waaye xam naa ci kanam tuuti rek ak jikko yi nga xam ne doon na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye comme ni nga ko waxee rek Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bi mu toogee nekk xalifa Serigne Touba. ak lu jiitu loolu daana liggéeyal Serigne Touba ndax. ku xam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xam ne sanc na ay barab yu bëree bëree bëri te li taxoon mu sañc ko du dara lu dul liggéeyal Serigne Touba waaye ak jàngal taalibe Serigne Touba yi naka la ñuy jaamoo sunu borom bi tabarak wa waaye ak tarbiya leen muy tarbiya ruux muy defal seeni ruux ba lenn loo xam ne dana leen mën a gàllankoor ci seen diggante ak seen borom loola eh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké def ca daan def ay jéego yu bëree bëree bëri kun kenn ku daana liggéeyal sëriñ Touba laata muy dikk ci xilaafa gi bokk na ci dëkk yooyu nga xam ne sax sancoon na ko bokk na ca Daaru Rahmaan gii nag moom moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, nekkoon na fa maanaam euh, sancoon na ko euh, moom Cheikhul Khadim moo ko sancoon moom mu nekkoon fa moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di fa liggéey sëriñ Touba waaye gannaaw bi moom moo nekk kër yi Souhaïbou gi nga xam ne fa la yi bu dëkkee waaye mu sanc moom Cheikh Abdoul Ahad ay dëkk yu bari lu mel ne kàdd Balooji ak Gelongel ak Kolobaan ak Kàbbu Gay ak Baraan Jeng yooyu mi ngi ko sanc ci atum 1932 la ko sanc atum 1932 soo demee ci béréb yooyu danga nga fay fekk ay béréb yoo xam ne dañ fay sàkkoo xam-xam mhm. waaye da fa fekk ay taalibe yoo xam ne euh, surtout ay magi yi yoo xam ne ci jamonoy seex Abdoul Ahad Mbacké la ñuul nga xam ne moo leen tarbiye woon talqiya leen defar leen ba ñu nekk ay nit ñoo xam ne ñu tege ci siraatal mustaqim lañu ñu xam li leen war tey moytu li nga xam ne warul leen euh, mu defar leen bàyyi leen fa dinaa ci tudd kenn rek mu boo demee Baraan Jeng nga xam ne mi ngi jege suñu dëkk ku mel ni Baye Laat Jeng nga xam ne moom taalibib sëriñ Tuubaa bañ ne euh, taalibib Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la nga xam ne bañ ne ko euh, Cheikh Abdoul Ahad sax moo ko dëyal foofa ne ko toogal foofu euh, maanaam lépp loo soxla dana la fa fekk am na sax kër waaye teewut mbaraan jëng googee foofu la féete ngir liggéeyal fa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon nga gis ne Cheikh Abdoul Ahad jàmbaar la joo xam ne musta teggi tànkam jamono ji mu nekkee ci kaw suuf musta mm-hmm. teggi tànkam mm-hmm. moo tax ay jeexitam duñu dañ ci di ko fàttaliku foo dem ci àdduna ñu ngi fàttaliku ay jeexati Cheikh Abdoul Ahad ndax ab liggéeyam bu rëy mm-hmm. boo xam ne def na ko ci yoonu murit def na ko ci lislaam bi mm-hmm. sanc na it dëkk bu ñuy wax Bayti Dia ci atum 1952 sanc na fu ñuy wax Badiane ci mm-hmm. atum 1963 yaakaar naa soliwu seen dëkk yooyu waaw Badiane sanc na fu ñuy wax Touba Belel ak Touba Mouride ci 1971 ak kër boppam gii nga xam ne moo nekk fii ci jumaa ji ci 1970 euh, kër googu sax sëriñ Abdoulahi Fall Ndar moo ko liggéey moo ko liggéey kon gis nga ne euh, béréb yooyu yëpp boo demee ci këram gii nga xam ne moo nekk ci jumaa ji da ngay fekk ne yërmaandey Seex Abdou Lahad ma nga fa ndax suñu mbokk yi nga xam ne yàlla dafa def seen i cër euh, wàññeeku da nga fekk foofu ñu leen fay dajale di leen dimbale di leen ci yenn sax ci ñi nga xam ne am nañ compétence ci wàllu faj wala wàllu xelal nit ki wala wàllu yëkkati seen alal di ko joxe foofa lañ leen di dajale nga xam ne loolu lépp ci yërmande Cheikh Abdoul Ahad la waaye ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad la loola di amee nga gis na ci ak xilaafaam it ci la yokke jumaay Tuubaa ji ci xilaafaam ci la yokkee jumaay ji kon da ngay gis ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jàmbaar la joo xam ne la ko mos a yitteel mooy lépp lu sëñ tubaab bëgg loolu nag euh, jumaay Tuubaa ji bi mu koy yokk mi ngi tàmbali ci atum 1987 ba ci 1988 Euh, ci la ñu ubbi waaj jumaa ji julli ci euh, kon nga gis ne jàmbaar la joo xam ne daal euh, sooy takk mbiram dangay xam ne kii jàmbaar la joo xam ne dara mosu ko yitteel lu dul mbirum sëriñ Tuubaa rek mu taxawal daaray kaamil daaray kaamil xam ngeen ne daaray kaamil mi ngi ko taxawal ci atum 1977 lan moo taxaw taxoon mu taxawal ko mooy bëgg alquran ak bëgg gi seexul xadim bëgg alquran te lépp lu seex euh, seexul xadim bëgg seex Abdul Ahad Mbakke daf koy bëggale loola lépp lu mu bañit daf koy bañal loola soo demee ci ay waxtaanam da nga fekk muy wax lu mel noonu mu tabax daaree kaamil euh, teqale ko ci ay barab yu bari maanaam ay ay béréb yu bari yoo xam ne fii alquran lañ fay def fii xasiday seexul xadim lañ fay def fii xam euh, maanaam téere yi nga xam ne mag ñi ñoo ko bindoon bàyyi fi moom lañ fay def yeneen yi yenn ci ay xam-xam yoo xam ne ñu ngi ko jëlee bitim réew moom lañ fay def nga gis ne kon boo demee ci bibliothèque boo ci dem rek da nga fa mën a gëstu ci xam-xam loo xam ne soo ko wattoo dana la mën a jariñ fii waaye dana la mën a jariñ ëllëg yowmal xiyam naka noonu it mu taxawal hôpitalu ndaamaatu hôpitalu ndaamaatu ci atum 1983 la ko taxawal kon gis nga ne euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daal ku mos am yërmande la ci nit ñi ndax képp koo xam ne yaa ngi indi fu nit ñi mën a fajoo bu ñu feebaree man faa dem faju kon kooku bëgg na nit ñi wér bëgg na nit ñi nekk ci condition yoo xam ne danañu mën a jaamu seen borom waaye danañ mën a dem di liggéeyi loolu lépp liggéey la boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, taxawaloon na ko naka noonu armeel yi mu yeesal ko sëriñ Baara Jenn maanaam moo def euh, xalifab sëriñ Isaa Jenn moom mooy ki nga xam ne moo amaloon liggéey boobu ci atum 1986 miladiya euh, kon bi mu àggee sax sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke euh, doomi sëriñ Bassirou Mbacke moom moo fa indi ak njobootam naka noonu mu defar université islamique mhm. bi nga xam ne tey moom la euh, sëriñ Mountakha Mbacke defar nii ba mu moderne wu mhm. nga xam ne dafa mën a jànge ay junni junni étudiant la mhm. yoo xam ne mën nañ faa jànge te lu jiitu loolu sax daanañ fa jàng am na ñu fa mokkale alquran am na ñu fa wattoo xam-xam am na ñoo xam ne bind nañ fa ay kaamil yu bëree bari loolu mi ngi amoon bi mu koy eh, sanc mi ngi eh, defar mi ngi nekkoon ci atum 1978 ci la ko amaloon nga gis ne kon eh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daal jàmbaar la joo xam ne mbiram daal moom boo ko doon topp tey pour nga jeexal ko rek dafay nekk lu jafe lool lool niki ni kër Seexul Xadim gii nga xam ne Euh, moo nekk ci wetu jumaa ji mi ngi ko liggéey ci atum 1982 miladiya mu yegg ci atum 1987 miladiya mu def ko ci turu Serigne Touba kon gis nga seexul euh, Seex Abdul Ahad Mbacke daal jàmbaar la jàmbaar la joo xam ne daal ni Serigne Touba waxoon ne am naa ci moom yaakaar te moom it mu bi mu toogee xalifa mu wax ne du ma tas yaakaar yi Serigne Touba kon boo toppee ay jeexitam da nga xam ne tasut yaakaar yi Serigne Touba waaw. waaw forage yeeg yëpp rek. waaw al oustaz maam Thierno kon noonu nga ko indee kon noonu kon loolu leer na kon Cheikh Abdoul Ahad ni nga ko waxee ne bi mu jotee ci xilaafa gi euh, ci 1968 dafa liggéey liggéey bu ama am solo waaye da ngaa wax ne Cheikh Abdoul Ahad musta jóg mukk ci di liggéey loolu lu wér a wér la Cheikh Abdoul musta jóg mukk ci liggéey waaye dafa nekk waxee jàmbaar la nag bi mu jotee ci xilaafa gi li mu liggéey. maam Cheikh Abdoul Ahad bokkul ci li mu jëkk a def hmm? li mu jëkk a def maam hmm? xool lépp loo xam ne suñu borom da koo tere maanaam loo xam ne dëppwut ak dëkk bi yëllewut ak dëkk bi maanaam maanaam mu fexe ba tere ko ci biir tubaa maanaam setal tubaa laabal tubaa ak li wër Touba lépp wama ak li wër Touba lépp bokk ci fi jëkk aaye maanaam comme maa ngi fi daan def lu mel ne que xeeti tux ak naan sàngara ak xeeti carte ak dam yi ak yoote ak maanaam xeeti fooy ak ki caaxaan rek maanaam mboolem lépp loo xam ne dëppawut ak dëkk bi rek maanaam lépp loo xam ne yëllut yëllut ñu koy def ci biir dëkk bi rek maanaam loolee si Abdul Ahad bi mu nekkee xilaafa bokk ci li fi jëkk jëlee maanaam raxas dëkk ba mu set wecc te Seex Abdul lépp loo xam ne da koo aaye suñu borom ko aaye lépp lu mu aaye yonent bi da koo aaye sëñ Tuba aaye ko ndax alxuraan nee na inamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsun min amali saytaane kon mboolem jëf yi yëpp maanaam maanaam sobe la te jëfi saytaane la te jëfi saytaane la te xama kon suñu borom moo tere ko lépp loo xëy xeetu saytaane la kon yëpp yëpp yëpp maanaam maanaam jëfi seytaane la te Cheikh Abdou Ahad li nga wax ne Cheikh Abdou Ahad maanaam ku am yërmande la Cheikh Abdou Ahad ku yéene ñëpp jàmm la Cheikh Abdou Ahad ku yéene ñëpp ñu texe la Cheikh Abdou Ahad ku bëggal ñëpp jàmm la moo tax xolal alxuraan dafa wax ne yaa ayyuhal lazina amanu xuu anfusakum wa ahlikum naaram xam nga Cheikh Abdou Ahad bi alxuraan ne na ngeen fekk seen bopp ak seen ñooñ sawara moo tax Cheikh Abdou Ahad maanaam ginnaaw bi mu xamee ne lii moom jigéewu ci dara lalu ci dara maanaam fexe ba maanaam taalibe yi maanaam ay njabootam jullit yi maanaam moytu moytu mboolem xeet yi bon yépp xam nga loolu koy mooy bëggal ñëpp jàmm bëggal ñëpp texe bëggal ñëpp maanaam ak tàbbi àjjana pour ëllëg ndax alxuraan moo ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi gëm yàlla xu anfusakum na ngeen fegal seen bopp wa kum ak seen ñooñ naaran sawara xam nga si abdoulahan mën naa yooyu moom kese kese rek moom du ci laal dara dara waaye xoolal daa bëggal ñëpp jàmm moo tax xoolal moo tax gisal moo tax yii yëpp maanaam mu tere ko ci dëkk bi ngir bëgg ñëpp mucc ëllëg loo na Cheikh Abdoul Ahad nekk jëmm joo xam ne te mboolem yii yëpp yëpp mu doon tere suñu borom moo ko tere kon suñu borom moo ko aayee waaye waaye Cheikh Abdoul Ahad maam suñu borom da ko cee far maam lépp lu mu bëgg rek suñu borom ko cee far maam Cheikh Abdoul Ahad lépp lu mu bëgg suñu borom da ko cee far da ko cee far. mu mel ne comme wax nga te bari ba tey bi mu nekkee xilaafa yokk goo xay si Abdoul Ahad yokk na ko jumaa ji yokk na ko jumaa ji ah maanaam joxaat dëkk bi xar kanam gu bees ah. joxaat dëkk bi xar kanam gu bees ah gis nga yokk jumaa ji yokk jumaa ji yokk dëkk bi maanaam maanaam maanaam maye ay ay mille deux cent parcelles ci Touba maanaam maanaam gis nga maanaam maanaam yokk jumaa ji wala Touba yokk Touba yokk gu yéeme yéeme yéeme diir bu diir bu yàggut diir bu yàggut waaw kon gis nga. yii yëpp nga xay si Abdou Ahad da koy def day waral moom moom ku xër a xër la ku xër la waaw kon gis nga yokk gi mu yokk euh, dëkk bi maam maye 1200 parcelles maye ko ci dëkk bi maye ko ci dëkk bi nga xam ne tegu ci kenn benn peen loolu dëkk rek la jur kenn dara loolu dëkk lu dëkk kese kese kese kese gratuite la ko maye maam ti maam téeméeri junniy parcelle ñaar fukk mu maye ko la kenn dara loolu dëkk dëkk kese kon kooku gis nga kon gis nga kon ni mu lottisee dëkk bi defar mbedd di defar yépp defar lool waaw bi loolu jàllee gis nga si Abdou Ahad mu waxaat loolu ne mu waxaat ne képp koo xam ne am nga puujum néeg ci Touba na leeral mooy sa seede ëllëg yomal xiyaam loolu tax na ci li loolu tax na maanaam doomu aadama yi maanaam taalibe yi maam gën a dàq ñëw ci Touba gën a dàq ñëw ci Touba Touba màgg màggu gaaw a gaaw ci diir bu diir bu néew diir bu néew si Abdou Ahad maa koy nekk jëmm joo xam ne maanaam maanaam ku barkeel aw làmmiñ la maanaam làmmiñu barkeel da ko doon ci Seexul Xadiim maanaam lu lu mu wax rek loolu day day loolu day day am suñu borom ko defal barakatul lisaan lu mu lu mu xalaat rek loolu day am comme Sëñ Tuubaa lépp lu mu xalaat dëkk bi ba ñaan ko loolu day am si Abdou Ahad lépp lu mu bëgg day am lu mu wax day am lu mu xalaat day wax day am kon wax nga kon yokk gi xëy suñ bi yokk na ko jumaa ji maanaam yokk ko dëkk bi loolu wax nga ko loolu loolu wax nga ko waaw wax yokk jumaa ji waaw waaw léegi euh, maam Thierno maanaam Cheikh Abdou Ahad ni mu yokkee dëkk bi yokk ko jumaa ji loolu lan lay tegtale xam nga ku nay moom du def loolu ku nay maanaam woote maanaam mbooloo ñëw dëkk ab dëkk xam nga ab dëkk ko wootee mbooloo fay ñëw ah moo tax Cheikh Abdou lu masaan naal rek naal maam day naal loo xam ne day bàyyi xel ña ca kanam ña ñëwagut ña ñëwagut xoolal si Abdou Ahad bi mu mayee maanaam 1200 parcelles am ñu naan ñooñ ana ñan ñoo koy dëkke loolu ana ñan ñoo koy dëkke fekk si Abdou Ahad gis na loo xam ne ñoom gisuñu ko gis na loo xam ne maanaam nit ñi gisaguñu ko maam si Abdou Ahad ca kanam lay liggéeyal ca kanam lay bàyyi xel maam lu muy naal day naal maanaam ne lii dana ñëw ca kanam moo tax du du naal lu ndaw gis nga jumaa ji it bi bi yokk gi mooy lan xam nga dëkk bi yokku na dëkk bi yokku na jumaa ji daa war a yokk nag li naan ku dool ku naan yokk cere xam maanaam ku yokk cere yokk ñeex kon ku woo ay nit bañ dëkk si kon faw nga yokk nga yokk moo tax mu yokk jumaa ji ñaan ñi ana ñeen ñoo koy fees ana ñen ñoo koy fees xoolal jumaa yi Tuubaa lim mën def ci ay doomu adama ah? kon sëñ Abdoulaye day lii day tegtale ne si Abdou Ahad ku xër la maam nikul ku ngott maanaam bu ñuy lim ku moom si Abdou Ahad kenn du ko ci boole maanaam université bi gis nga ni mu ko def man ni ko leerlee indi na université defar université bi xoolal si Abdou Ahad université bi ni mu toll ak jamono jooju jam jam koy def xoolal dëkk bi xam nga demewul nii waaye xam nga si Abdou Ahad li ma la wax ne si Abdou Ahad moom day gis moom day moom moom xoolal day gis la ñëwagut la ñëwagut da koy gis te ñi fi nekk duñ duñ ñoom koy gis kon gis na si Abdou Ahad ni ko suñu borom mayee am xel ni mu jube am xel. nga xam ne day ma nga maam day day maam day liggéeyal ëllëg xam université bi defu ko bu ndaw université bi li fi mën a jàng ci ay ay ay étudiant kenn xamul nu mën a toll li fi mën a jàngale tamit ci ay jàngkat ay jàngalekat mën naa bari lool te du xat kon loolu naal la goo xam ne si Abdou Ahad naaloon na ko mu nekk nisër goo xam ne maanaam maanaam da koo defan bàyyi xel bàyyi xel ca kanamam moo tax si Abdou Ahad ku rëy yéene la si Abdou Ahad maanaam euh, jëmm joo xam ne euh, ah, kon boo ko ma daa mel dama bëgg naa daa dëgg kon si Abdou kon noonu nga ko waxee kon kon noonu nga ko waxee noonu la nga wax ne si Abdou Ahad mu daa tabax dëkk maanaam kër sëñ Touba kër sëñ Touba si Abdou tabax ko te gis nga kon si Abdou Ahad lépp lu mu def rek maanaam royukaay la ca xoolal fi xoolal fi ne fi réew moo dem ci adduna laa la wax boo limee nga ne réew sangam réew sangam réew sangam taalibe sëñ asalaamaaleykum. Ah, ku baax ñoo lay siyaare. ko Sadio Gueye am nekk. waaw ku baax kooku mu doon. ku baax kooku mu doon. salaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatulah. waaw ku baax kooku waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. na def. waaw yow sant baax a baax. ay kàlla. ndala ku baax kooku mu doon. waaw yaa ngi waxtaan ku am am solo de. waaw dëgg la de waaw. waxtaan jàmbaar joo xam si nii. Hmm. ku yàlla may la. wér de. ku yàlla euh, euh, euh, jàppale la. dëgg la. E, yaakaar ji sëriñ bi aman ci moom nag. ba mu ko ba mu ko ba mu ba mu dugg ma yàlla dimbali ko jëfee na ko. dëgg la. ñu nga xam ne suñu xam-xam bëri. Mm-hmm. waaye dëkk bi di Touba. Mm. koo xam ne bi nga bi nga bi nga doonee eh, Serigne Touba. Mm. di doomi Serigne Touba. Mm. moom lépp. booy wax ñépp di la dugg. dëgg la. boo nee ba leen ñu boo nee du fa amee du fa amee. mu am dara jënd ak gëdd boobu. daal di ah man kat sama doole ji bari bari naa naa naa wàcc rek buy diisoo bi doomu aadama yi nag. dëgg la wax nga waaw lépp lu ma sale da koy diisoo. te kat. Mhm. am na sañ tayut mhm. ndigalul def lu ko soob. Mhm. te day dëppoog la ndigalul sëñ bi dëppoog la yàlla def. dëgg la de. te kenn du ko ci yet. te wér. waaye loolu mu xam ne ne kat dëkk bi dëkk doomu aadama yi lim leen di lim lim leen di suuf si daraja. Ah. na wàcc bay diisoo ñoom ba du ba du leen wan ni. maa maa maa leen ëppee nit ñi. dëgg la de. te mu sañoon ko nag. da ca bëri ku dëkk bii di. sëriñ bi. li gën a jafe mooy ku tabee la dara jàmm. wér. ku kawe la te wàcce boppam. est-ce que dëgg la de. li koy firndeel. Hmm. ku tabe la. ah waaw. li koy firndeel. sëriñ bi nekk na ci ba def ci loolu li wax lépp nattu dëkk bi yokku dëkk bi fu ne. Hmm. gisoo fi doomam yëpp yi bàyyi gisoo fi lim nag lépp gisoo gisoo ci séeru pénc. dëgg la de laaj. leer na. wér li mu natt gisoo ci seenu pénc ñoom ñi fi nekk. lu leer ngay wax kay. kër ga mu bàyyi fa daam dañ ko séddoo. dëgg la te. li mu bàyyi ci dëkk dëkk bi muy université bi bi mu ko fi bi ko fi bàyyee tey jii bu ko fi bëgg woon tey jii duñ fi mën def lii. dëgg la de. rek dañ ko bàyyee ay doom bokkuñ ci séddoo wuñ ko dañoo def ay doom dañuy wutu fuñ dëkk. dëgg wér. ku gore la nag waaye ñun bàyyi nit ñi gore lañu. ah waaw wér na dëgg la de ku tabe la ñu dee tabe bi nga sëñ bi ñu nga suñu daal dawul da dawul denc luñ ci soxla muy ak dund ak yëpp bàyyiwul fi dara. wér nga wax. lu ma sa am daf ko jox nit ñi. te it li nga xam seen soxla te ci biir nag leen yàlla fay na ko leen de. fi képp ku jàq. ku am la naqar sa xel bu dem ci kenn ku ñu bu suñu blaat nekkoon kenn du ma dóor. te bu suñu blaat nekkoon kenn du ma ko lu ma naqari. Mm-hmm. suñu blaat ni ni ni mu nekk man daal wax dëgg fa yàlla. man nag kenn ku ne am nga sëriñ kenn koy am bët see am nga foofu it. waaye suñu bàq moom ku ñu ko tudd fi sa gëstu. day dugg sëriñ. li nga xëy tudd nañu ko jàmbaar. ku ñu ko tudd fi sa gëstu sëriñ. li nga xëy tudd nañu ko jàmbaar. tey tey nii ma lay wax lu ne man man lu ma leer lu ma leer la. dëgg wér nga wax kay. wax wax wu ma fi lu neex kenn na. dëgg wér ngay wax kay. dentul dërëm ba mu fi ne bayu fi bay bayu fi dërëm ñi ñi ko wuutu bayewu leen ñaari dërëm. wér la. kenn ku ne la nga am sa wërsëg ak ak sa man man bopp ak sa ak sa doon gàtt. tey dégg nga kenn nit ñi jëfewuloon a gis. Mm-hmm. ku wàcc ba bari ku ko ni ni yàlla def nga xam ni ku ne ana muy maa ngi nii ku ko ku ko am sa ne ana nga daanaa maa ngi nii. dëgg la de ak wér dëgg la de. ana ma ana nga yàlla nga xam ne ak yàlla na ne ku ma ane maa ko ma sa ne ana maa ngi nii. ah bu bu am yàlla fayee na ko seytaane li muy bari bari bari doole bu ma saa di wax. Ah. seytaane moom lépp lu ñu bokk dugg. bu ko waxee jëmm ji seytaan ngi ci bu seen daal wax ngay tekk diglu loolu nag loolu nag liggéey sëñ sëñ tubaab yi la kon yal na ko sa borom fay waa sëñ bi njabootam ju mu bàyyi ginnaaw itam yàlla jaar teg loxo amiin bari sëñ bi waa sëñ bi yàlla bu yàlla nattu gannaawam waa yi bari bari ci ak ak ak ak ci ak ci ak ah. yàlla dara yi suñu blaat yàlla bu ñu yàlla wàcc ak nattu ginnaaw suñu baax amiin bari sëñ bi waa sëñ bi waa sëñ bi donc ñaar baax waa sëñ bi ku baax ki baax jërëjëf waa sëñ bi sëñ bi sëñ bi euh, turam laa bëggoon a laaj dama ko bëgg na laaj turam ndax wax dëgg yàlla maanaam jàmbaar la lool te boo diggee ni wax nga xam ne ku am maanaam ku xiir ci Cheikh Abdoul Ahad la kon jëmm jooju ah, sëriñ bu baax boobu kon ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di ko xamal ne maanaam képp ko yaa ngi dégg ni muy waxee rek nga xam ne maanaam li mu bëgg wax dëgg dëgg dëgg dëgg ci eh, ci maanaam mënu koo génne ci làmmiñam maanaam kooku dund Cheikh Abdoul Ahad la kooku maanaam kooku maanaam am na yëg-yëg ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mooy jàmbaar ji ñuy waxtaane kon maam Thierno kii jaar na ci kawam fi fi nga jaaroon Cheikh Abdoul Ahad ku bari yërmande la Cheikh Abdoul Ahad yu baree bari junj ko ko ne dañ ci jaaraat ah bu ma saan a wax rek ñëpp dañuy dañuy déglu ne teg déglu xiir gi ma toll woon di wax da ciy wax lu am solo xiir googu mën a wax rek nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad lépp lu muy naal rek day def lu mag ngir lan ngir maanaam bàyyi xel ca kanam ca kanam xoolal xoolal kër sëñ Tuubaa gii ma ma toll wane maanaam euh, sëñ Cheikh Abdoul Ahad bokk ko ci ay ay ay jëfam yoo xam ne jëf na ko kër Cheikh Cheikh Abdou Cheikh Cheikh Seexul Xadim gii mu tabax nga xam ne amul miraas amul miraas ku fi nekk Serigne Touba yaa ko moom te xoolal euh, Cheikh Abdou Ahad maam lépp rek royukaay la ci xoolal maam euh, dëkk maam riiw moo dem li ma la wax léegi riiw moo dem dëkk boo dem am na kër Serigne Touba te loolu lépp njàngaleem Cheikh Abdou Ahad la fii gis nga boo fii na gis nga ñuy tukki ci riiw yi mën naa mën ngaa mën ngaa lim riiw sangam riiw sangam riiw sangam taalibe ya fa nekk yooyu Serigne Touba am nañ fa kër sëñ Touba te lool lépp ñu ngi ko royee ci Cheikh Abdou Ahad suñu jàmbaar ji maam dëkk boo dem man nga ne kër sëñ Touba ma nga fa jàkkaarloog pénc ma te loolu ñu ngi koy royee ci Cheikh Abdou Ahad Mbacké te kër googu amul amul miraas amul doon kan moo koy moom ku mag yaa moom te loolu lépp maanaam mu ngi jóge ci xalaatub Cheikh Abdou Ahad xalaatam bu rafet boobu ci la loolu bàyyi ko xam nga lool wax nga ko Cheikh hmm? Abdou Ahad dafa nekk koo xay maanaam royukaay la maanaam royukaay la gis nga kon foo dem rek fekk ma fekk fa ay jëfam fekk fa loo xam ne mën a roy la léegi nag ba tey wax nga euh, université bi wax nga ci ñëw nga ci université bi wax nga ci mooy ñëw nañ ci Cheikh Abdou lépp lu Sëñ Tuubaa masaana tudd ci xasaa itam yi Cheikh Abdou Ahad jëm jëmmal na loola kon day tegtale maam li jëmm ji waxaat ne ba mu ganee jamono Sëñ Tuubaa ne am naa ci moom yaakaar mboolem lu Sëñ tubaa bëggoon lépp Cheikh Abdou Ahad defal na ko ko mooy am naa ci moom yaakaar ah? xoolal sëñ tubaa ne sëñ tubaa neewoon na euh, bil mus dafa dafa wax ne wajaal maskan wajaal hu dëhban maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahumi wajaal hu dëhban maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahumi xam nga sëñ tubaa ñaanoon na ko ci dëkk bii ca matlul fawsayni boo fa demee waxaat ne waxaat ne bil mustapha lii banal quduus madrasatan biha yasaalu asaawal jëhlu wal kabadu lii bu ñu ko doon euh, maanaam leeral benn par benn benn par benn rek maanaam mat na maanaam doy na ab tem dem doy na ab lii ma wax nii rek ñaari bind yi sëñ Tuubaa wax rek ñaan ko rek Cheikh Abdou Ahad defal ko ko muy jàngukaay boobu mu mu bii kon xoolal la sëñ Tuubaa ñaanoon la sëñ Tuubaa bëgg woon la sëñ Tuubaa nisëran Cheikh Abdou Ahad kon jëmmal na ko muy université bii kon bayt yi ma wax rek mën na koon jël par benn par benn kon maam ci loolu day day day day ah la ca desaat wax nga ne sëñ Touba moo Cheikh euh, Abdou Ahad maanaam daa fekk la sëñ Touba gën a bëgg gën koo fonk muy alxuraan Cheikh Abdou Ahad moom daal di ñëw wutal alxuraan ab dëkkuwaay muy ak kër maanaam wutal alxuraan ab dëkkuwaay muy kër te yëmu ca nag ba mu ba mu wutalee alxuraan ba noppi kër maam da dafa dafa dafa teral alxuraan moom Cheikh Abdou Ahad dafa teral alxuraan maanaam daa wodd alxuraan maanaam wutal alxuraan mbubb xoolaat alxuraan li ko Cheikh Abdou Ahad maanaam waddee teral ko daa jël alxuraan jël ay kees yu taaru kees yu rafet dugal ci alxuraan dugal leen ci ay weer wutal ko def ko ci kër xam nga ne xam nga ne alxuraan amoon na fi bu yàgg a yàgg a yàgg waaye waaye gis na nii Cheikh Abdou Ahad Mbacké terelee alxuraan waddee ko alxuraan jamono yooyu kenn def ko woon ah Cheikh Abdou moom Cheikh Abdou gis nga moom moo wutal alxuraan kër ba pare maanaam yéemu ca maanaam wadd alxuraan ah maanaam maanaam maanaam wutal ko ay ba pare maanaam wutal ko ay kees yu taaru yu rafet yoo xam ne yéeme na loolu lan lay tegtale day tegtale ne maanaam sëriñ tubaa Serigne Touba ni mu bëggee woon alxuraan nga xam ne Serigne Touba daawul jël alxuraan di ko teg ci suuf danaan jël alxuraan teg ca kaw di jël ay di jël parfon sikki wala miski wala parfum di ko di ko wis ca kaw takay way naa ko yaa kitaabal mi anta habibi wa xalili wa xabla kunta tabibi kon Cheikh Abdoul Ahad kon donn na sëriñ tubaa ci fonk wax xam teral na ko alxuraan kon gis nga ni mu teralee alxuraan maam fekk bëgg-bëgg boo xawee bëgg-bëggu bëgg-bëgg Serigne maanaam gis nga mu taxaw ja mu taxaw ca gis nga kon ni mu fonkee alxuraan teral alxuraan kon loolu boo toppee loolu rek kon kon damay daal jël sa waxtaan waaye damay bàyyiwaat kon. kon maa ngi bëggoon a dugg ci maanam ba ci hôpital bi nga wax nga xam ne nit ki maanaam nit ki balaa mën a am balaa mën a am jàmm balaa mën a am aafiya daa daa daa wér daa wér moo tax la sëñ Tuubaa ñaanal ne was fi jamial muslimina ajila summa xihim xawfan wa xusnan ajila gi sëñ Tuubaa ñaanal sëñ Tuubaa si Abdou Ahad jëmmal na ko ko defal na ko ko ah wa an sili wa mu ne an sil makaana daa i wala tuamila bi ibtilaa i si Abdou Ahad defal na ko loolu ah ak forage yi tamit sëñ Tuubaa lu mu ñaan rek si Abdoulaye si Abdoulaye dafa mel ne daa jël baaraamam di di xool lu sëñ Tuubaa ñaan mu pointé ko lu sëñ ñaan ci téeréem yi mu pointé ko lu sëñ Tuubaa ñaan ci téere yi mu pointé ko bi sëñ Tuubaa ne wa maskani sallim minal fu jaari wam nun ala ëhli bi ma jaari xoola forage yi ci si Abdou Ahad li mu defar ci ay forage si Abdou lu sëñ Tuubaa bëgg rek day mel day jël baaraam pointé loola jëmmal loola kon la sëñ Tuubaa dama si am naa ci moom yaakaar kon kon sëñ si Abdou kon dëggal na loola si Abdou Ahad dëggal na loola ndax mbool mi sëñ Tuubaa yaakaaram bëgg ko rek defar na ko gis nga ba ci yu baree bari maam Thierno yu baree baree baree bari yu baree baree bari yoo xam ne sëñ Tuubaa bëggoon na ko naal ko mu def ba ci gis nga armeel yi gis nga ko def ko yu ndaw armeel yi bàq yi wax ne si si Abdou ci ay naalam la bokkoon ci ay naalam la sa bokkal moo ko rëddal kon gis nga kon li muy xalaat ca kanam ca kanam kon Cheikh Abdou Ahad kon moom la ñuy royukaay bu mag la kon maam Thierno dama lay bàyyi nga doxaat ci Cheikh Abdou jàmbaar jooju nga xam ne li ñu rek géej la géej la jàmbaar yi nga xam ne woote na léegi nag ñoo ngi koy sant baax a baax a baax wax dëgg yàlla moom ku dund Cheikh Abdou Ahad la maam Thierno kon Cheikh Abdou Ahad kon mi ngi noonu moom la ñuy waxtaane jàmbaar la joxe muy su ko jeexal bisimilah maam Thierno kon nga dolli waatal nu ci maam Thierno ci ci ci Cheikh Abdou Ahad jàmbaar jooju ah, yaral xafaaya bi ay nil qalbi saahiratan kama yusaahidu ma taxtal akinaati hmm. xam nga eh, nit ñu baax jooju dañuy gis li ñëwagut mu nekk la ñëwagut dañ koy gis moo tax dañ koy fàggu laata muy ñëw hmm. ci fàggutee fi gisu baatin ci la fàggoo université lépp rek ci la ci la lépp loo xam ne rek. waaw euh, euh, liggéey na ko jël benn waaw laata laata muy dem. waaw moo tax woykat ba waxoon ne. Hmm. ca xaf sasin la ñàkki caaxaan ne jaleñ hmm. jubbanti mbooloo ma ko bañ daat ne falañ. Hmm. mboolem la seex bamba bëggoon fa Touba. seex Abdou def na ko fa Mbakkeeg Touba. yeggale naal ya naali naalam koo fi xiyaas mu far taxaw ci kaaram. Euh, loolu mooy seex Abdul Ahad. te waykat bi dafa wax ne alwaarisu waarisu ruuxa wal maqaama mhm. doom buy donn mhm. day donn wàlle ruuga mhm. donn maqaama ma eh, wax nga ko léegi ne sëriñ tubaa dafa bëggoon alquran ba daan wàcc ay lalam di ci teg alquran di fab laaj ko lu ñu sekki wala libin di ko ca sotti ba noppi tiim ko di ko takk naan ko yaa kitaabal karimi ba naan ko anta kanzi yooyu yëpp di ko wax ne ko yaay sama koom yaay sama tedd nga yaay sama xarit Euh, yaay sama docteur bi may faj bu ma feebaree. Mhm. sëriñ tubaa bi muy séddale ay jikkoom dafa waxoon ne alquran séddale na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké juróom-ñaar jikkoom yooyu mu waxoon bi mu koy séddale bokk na ci jikko yu euh, lim séddoon Cheikh Abdoul Ahad muy alquran. Mhm. kon Cheikh Abdoul Ahad bu dikkee fonk alquran. Mhm. yëkkati ko teg ko ca kaw fu mu tegu dara dara dara xamal ne euh, loolu moo nekk ab cëram boo xam ne war na koo doxee te doxe na ko. li jëmm ji wax Cheikh Abdoul Ahad booy wax ci moom maanaam géej la sa kàddu yi ngay wax ci moom dafay mel ne nga jël pusa dugal ko ci géej génnewaat ko astoq nga ci wax ci ak mbaaxam ci ay jëfam yu rafet waaye mënoo wax léppam naka noonu maanaam dafa nekkoon koo xam ne jëmm la ju maandu ndax lii tax ma ne la jëmm la ju maandu daana wax ne daanañ wax ne ku mu ñàkki caaxaan la ku mën a wax nit dëgg la waaye moom daana wax ne maanaam dëgg danga koy wax ki nga ko sañ a wax mhm. maanaam daw ko wax mukk koo xam ne euh, sëñu la ko wax mhm. ndax daf daan wax ne ñett dana waral euh, maanaam nga bañ a wax nit ki dëgg ndax bokk na ca nga ne nit nga bëgg wax nit ki dëgg mhm. mu ne la laajuma la wala nga bëgg ko wax dëgg mu ne la si yoon nekku ci wala nga bëgg ko wax dëgg mun ne la yilifoo ma yooyu yëpp Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana ko sàmmante ci ay kàddoom moo tax ñim daan ñim yilifoon te sañ leen wax dëgg rek ñooñu la daan wax dëgg mm-hmm. la ca des nag dana waar dana wax ni ni nga xamee ne noonu la suñu borom santaane ak noonu la teree su ko defee kii dégg te bëgg a dégg mm-hmm. dana ca jariñu ki bëggut a déggit nag kooku kenn mënu ci moom dara ndax bi yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi bëgg a dégg déglu nañ ko waaye ñi bëggut a dégg kenn dégluwu ko ci. Mhm. Sëriñ tubaab bi mu ñëwee. Mhm. am na ñu ko gëm waaye ba tey am na ñu ko gëmul. kon nit ki yàlla mi ñu bind sax ba tey am na ñu ko wetti kon euh, nit mënut wax ne lépp lu may wax ñépp a koy jëfe waaye na wax li mu war a wax def li mu war a def su ko defee ki jëfe moom fekk na wàcc na ki jëfewut wàcc na mm-hmm. waaye ki jëfewut moom mi wax wàcc moom mi wax la mu war a wax wàcc na mm-hmm. waaye ki jëfewut moom moo des ndax Sëriñ Tuubaa loolu la waxoon mm-hmm. bind naa bàyyi fi jëf naa ngeen gis wax naa ngeen dégg kon man wàcc naa ku jëf nag wàcc nga ku jëfut nag man wàcc naa yaa ci des kon Seexul Xadim moom wàcc na ci côté bu waaye njoboo tamit wàcc nañ ndax lépp lu leen war bi ñu Euh, bi ñu nekkee ci xilaafa gi ak laata ñuy nekk ci xilaafa gi ca loola ca lañ teg seen tànk ndax bi ñu nekku ci xilaafa gi eh, seexul eh, seex abdul ahad mi ñu waxtaane bi mu nekkugu ci xilaafa gi ñu mu war topp topp na ci ñoom déglu seen i ndigal di eh, bàyyi seen i tere te musta nekk sax ci lenn loo xam ne dañ koy tere lenn loo xam ne dëppoo wut ak bëggu bëgg-bëggub sëriñ Tuubaa moom seex abdul ahad mos caa teg tànkam kon kooku kenn ku ne xam ne ne nekk na ca la mu waroon a nekk moom seex abdul ahad naka noonu euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax nga ko léegi ci atum 1977 gi euh, ci la yeesal marché Ocass waaye ni nga ko waxee léegi ni maanaam euh, bi mu yokkee jumaa ji ba noppi dafa wax ñépp de ñëw leen Touba maanaam képp koo xam ne am nga puuju néeg sa ci Touba rek mhm. mooy doon sa seede ëllëg yowmal xiyam mhm. loolu ci fukki fan ak juróom-ñaar ci atum 1972 la woon ak ñii ñu dikk signé ngir kër yi nga xam ne amoon na ko moom Cheikh Abdoul Ahad mu def ko ci turu seexul Khadim kon li nga waxoon léegi sànq ne euh, mbooleem euh, kër yi nga xam ne ñi ngi koy defal Cheikhul Khadim ñi ngi ko royee ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké loolu rek da ciy doon firnde lu mel ne boo demee fu ñuy wax Pekes këram kër gam fa amoon ak biir kër euh, kër Samba ak Thiès ak fatik ak pikin ak Tikiñ euh, Tëngéej ak Kolda ak Pàkkum Njaareem yooyu yëpp dafa woo jëmm yuy tedd yi muy jëmm yuy tedd yi la woo ngir ñu dikk signé ko ci kanam kerefe seef bay di faatim euh, dem euh, ñooñe bokk na ci ñu ko signé woon muy sëriñ Amsatu Mbakke moom maam noo Ibrahima Faati ak sëriñ Seex Jaxate doomi sëriñ Amsatu Jaxate nijaayam <coughs> ak sëriñ Moodu Maamun Ñang ñii la signaloo signaloo woon loola pour ñu def euh, maanaam kër yooyu ci turu seexul xadim nga xam ne dootuñu wax ay turi kër yi seex Abdul Ahad waaye kër yi seexul xadim la ñuy wax kër yi seexul xadim la wax kon nga gis ne euh, fi nga xamee ne foofu la sëñ Fallou yemoon it ci wàllu parcelle maanaam ci dëkk yi mm-hmm. Touba fi mu yemoon lu ci bari wax nga ko léegi moom Cheikh Abdoul Ahad yokk na ci lu toll ci vingt cinq mille euh, parcelles yokk na ko ci bi mu nekkee xalifa mu war toll ci yaakaar naa su ma juumut ñaar fukki junni parcelle ak juróom euh, suma ma juumut su fekkee ci wolof bi juumuma ci mu def ko it communauté rurale moom moo def dëkk bi communauté rurale mu boot Tindoodi Ndindi Kayra Mbay ak Kër Kàbbu Kër Mor Abdou ak Kër Sëriñ Mor Gumba Kebe ak Kër sëñ Balla Badiane ak daarul xadim ak daaru karim dëkk yooyu yëpp it mhm. mu boole leen ci ëttub Tuuba mhm. moom Cheikh Abdoul Ahad ah. ndax li ko waral mooy ñi ko sancoon ñëpp nekk fa sëñ tubaa moo leen joxoon digal pour ñu sanc dëkk yooyu mhm. kon da ngay gis ne Cheikh Abdoul Ahad mësul dañ di boot njobootuk sëriñ tubaa gi waaye di boot seex sëriñ Tuuba yi euh, fa nga xamee ne fa la ñu féete woon waajuram Euh, ñu féete ko fa waaye moom it fa leen euh, waajuram féete woon moom it mu féete leen fa di leen di taxawu seenu njaboot ci lépp loo xam ne euh, war na leen caa taxawu moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké naka noonu wax nañ ko léegi ci <coughs> forage yi wax nga ko maanaam forage yi nga xam ne moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké taxawal na ko mu ci dëkk yooyu ak ci biir Touba. muy forage yu bëri. Mhm. tam nekkoon ci jamono joo xam ne jamono ju taroon la. yoo xam ne Touba ak li ko wëroon. Ah. ndox jafe woon na fi lool metti woon na lool daal maanaam. te jaamu waaw waaw te jaamu yàlla mënul am. <laughs> ak mënul am te ndox amut. waaw waaye Cheikh Abdoul Ahad mhm. moo fi taxawal ay forage yu bëri. Mhm. Euh, bokk na ci forage yooyu ba ci njëkk bi nga xam ne moom lañ njëkk a inauguré. ñu ngi ko inauguré le vingt cinq cinq mois. 1972 euh, 1972 euh, ci lañ ko inauguré euh, xaalis bi nga xam ne jot nañ ko caa def toll na ci 140 millions maanaam téeméeri million ak ñeent naka noonu wax mu indi fi brigade bu rëy boo xam ne dara wëralu ko lu dul kaaraangey dëkk bi ci saahir ne baati nga taxaw foofu rek ma joxe ma joxe ligne bi kon nga tega foofu sa baaram fi nga taxaw muy maanaam brigade bi mu fi indi kon brigade bi mu fi nga teg foofu sa baaram mu mel ne kon képp koo xam ne yaa ngi topp waxtaan wi di ko bàyyi xel te bëgg a dugg ci biir na nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 képp koo xam ne yaa ngi déglu Bawal Média FM di déglu waxtaan wi xam moom la ñuy waxtaan di waxtaanee jàmbaar ju màgg jàmbaar ju tedd jàmbaar joo xam ne maanaam suñ borom waajal la jàmbaar joo xam ne. maam géej la képp ko xam yaa ngi déglu waxtaan woo rek na nga jaar ci 88 628 19 05 kii ñuy waxtaanee mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Xaadimu Rasuul ci lañ nekk di di ci waxtaan kon al oustaz maam ci rama jox nga continuer képp koo xam ne bëgg naa ànd ak ñun ci waxtaan wi da ngay jaar ci 88 628 19 05 ku ci jaar rek da nga mën a ci biir nga dolliwaatal nu ci jàmbaar jii nga xam ne moom la ñuy waxtaanee muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon oustaz maam Thierno kon brigade bi nga xam ne def na ko tamit ak yi nga lim yëpp rek kon damay bàyyi nga continuer ji bisimilah al oustaz. Euh, naka noonu xam nga la ne Matlabul Fawzayni mooy téere bi nga xam ne moo doon palaam. Mhm. ci ëpp lu mu daal waxtaan ci bari daal waxtaan. moo doon palaam ci lim defal ci dëkk bi yëpp. soo ko xoolee ci biir Matlabul Fawzayni. Mhm. da nga fekk benn bayit bu lay jàngal loola. Mhm. ca jumaa ja la waaw asalaamaaleykum aleykum salaam wa ku baax ñoo lay siyaare ah, Maguette Diop la Maguette la Maguette Diop la ah, Maguette waaw waaw Maguette may siyaare baax Diop waaw ah, yal na yàlla defal yoolu siyaare ñu bokk ñëpp waaw di leen ñaanal jàmm bu baax ak tawfeex. waaw amiin yaa ngi ci yàlla boole nu waaw tey da ngeen a nekk ci tomb boo xam bu am solo la. waaw waaw. waaw mu mel ne xol yëpp tooy na. Hmm. waaw ndax Cheikh Abdoulaye dafa naqaree waxtaane yomb waxtaane. dëgg la waaw dëgg la de. ndax ay jëfam yu baax dafa bari te yaatu. dëgg ah, nag waaw. li ci nit mën a wax rek am na lu ci defal. dëgg la kay mënu su ko jeexal géej la. waaw ñun nag dañuy gàttal rek di leen ñaanal tawféex rek. waaw amin waxtaan bi rafet na macha allah ngeen yàgg sa waxtaan. amin amin waaw ñu leen di déglu ñëpp macha kontaan nañ lool lool. askay askay. ñu ngi siyaare man na moom bu baax it moom itam waxtaan wi rafet na. jërëjëf jàmbaar la lool de yal na yàlla yàggal taxawaay bi rek. kontaan nañ lool ci woote bi de bég nañ ci lool de ci woote bi. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax macha allah bu duggee jafe na waaye léeg-léeg dañuy bëgg a woote lu bari waaye dugg bi mooy xaw a kii léeg-léeg. waaw dëgg la la kay. waaye buñ dugg ci waaw kay baax na jërëjëf xéwal rek jërëjëf ñu ngi leen di euh, kooku mooy euh, Serigne Maga Diop kooku sama mag la ñoo bokk ndey ak baay moom toujours saa yu saa yu liggéey ba wàcce rek moom day jël rajo bi moom toujours dara du ko ci raw dara du ko ci raw moo waa këram moom waa këram dara du ko ci raw mais boo demee ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi déglu waaw wax dëgg yàlla loolu nag mooy ak bëgg la may bàyyi xel comme li wax ne kon rajo bi kon mi ngi dox mi ngi dox te ñëpp a koy bàyyi xel kon gis nga ko loolu kon jëmmal na ko wéral gis nga ko waaw kon rajo bi dafa doon rajo boo xam ne ñu baree bare baree bare ñu ngi koy bàyyi xel rawatina moom sëñ Maguette Diop moom nga xëy moo woote nga moom fu mu mën a dem ak fu mën a xëy rek saa yu wàccee rek saa yu may def émission rek moom ma nga jël rajo bi di ko déglu ak waa këram ak mboole waa koñ ba ñëpp ñu ngi koy déglu kon moom it ñoo ngi koy sant bu baax a baax di rafetlu maanaam woo maanaam woote nga xam ne woote na ko kon ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax kon jërëjëf kon waaw Oustaz Mame Thierno kon nga kon ci fi nga toll mooy biir gàtt yeeg xam nga yi nga tolloon ci yooyu. jërëjëf def ci xam nga ah, forage yeeg yooyu. Ah, jërëjëf euh, di siyaare suñ màggat moomu ndax suñu mag la ñun ñëpp gëj naa ko gis nag waaye maa ngi koy siyaare bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu soxna yooyu ci kër gi ak suñu yaay di siyaare ñëpp bu baax a baax mu mel ni ñu ngi tolloon ci ni Cheikh Abdoul Ahad. ab tegtalukaayam muy plan bi nga xam ne ci lay euh, jaar ngir liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi mm-hmm. lépp boo ko xoolee danga koy fekk ci biir Matlabul Fawzayni mm-hmm. nga xam ne moom la waxoon na mooy tegtalukaayam ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mm-hmm. te tegtalukaay la bu wér wér boo xam ne Sëriñ tubaa jàngale woon na ci biir téere boobu ah. lépp loo xam ne bëgg na ko ci dëkkam bi moo xam ci jumaa ji la moo xam ci wàllu njàng la moo xam ci wàllu ndox la moo xam ci lépp lu mu mën a doon rek hmm. soo ko xoolee ci biir téere boobu nga xam ne mooy mat la bul faw say ah. da danga ko ci fekk moo xam ci wàllu kaaraange sax hmm. boo ko xoolee ci biir da nga ko ci fekk moo tax lépp Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, fàggu ko hmm. euh, ci li nga xam ne moom la ko Sëriñ Tuubaa baaxe woon mu mu tolloo akub liggéeyam lépp lépp fàggu na ko te leneen lu fi nit maanaam leneen loo xam ne gis nga ñu taxawalaat ko it boo ko xoolee. Ah. da nga ca fekk liggéey Cheikh Abdoul Ahad Mbacké la waaw ndax boo xoolee ci université bi da ngay gis na Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko ah, taxawal. boo xoolee jumaa ji da ngay gis ne képp kuy yokkaat wala ngay defaraat itam. Ah. da ngay gis ne da ngay defar ab sooroor wala leneen waaye mboolem xalifa yi fi jaar yëpp. yokk bi moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké defoon na ko ba noppi mm. kon dañuy ñaan rek yàlla nañu yàlla taas ci barkeem euh, naka noonu moo yeesal ay nu rahma ay nu rahma yeesal na ko ci ak xilaafam mi ngi ko yeesal ci atum 1978 moom it def ci xaalis bu bëri ci lu toll ci téeméeri million mm. def na ko ci liggéey boobu kon nga gis ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jenn jàmbaar la ci jàmbaar yi nga xam ne sëñ tubaa fàggu na leen mm. ci jàmbaar yi sëñ tubaa fàggu moom kenn la ci biir liggéey boobu boo xam ne liggéey na ci lu am solo daana waxtaan lu bari ak mbokki jullit yi rawatina taalibe yi murit yi di leen fàttali ndigali sunu borom yi ak tereem yi ak bëgg-bëggu sëriñ Touba ci biir tuuba kon maanaam nekkutoon koo xam ne rek dafa toog ci ab ruqam ñu di ko fa fekk di ko siyaare bu ñu paree mu dem waaye daf daan toog bu toogee ab diir génn waxtaan ak mbokki jullit comme ni ko Sëriñ Muntaxa di defee bu toogee ab diir génn waxtaan ak mbokki jullit yi fàttali leen seen borom fàttali leen ni ñu war a dunde sunu sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa waaye fàttali leen Sëriñ Tuubaa li mu bëggoon ci dëkkam bi daana wax ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa yéen mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi mm-hmm. maa dellu di leen nuyu di leen sant di leen fàttali la ma leen fi waxoon mu jëm ci dëkk bu tedd bii di Touba gii nu ne nu dolli ko warmaal dolli ko sàmm lu fi yellut moytu ko ndax boroom dëkk bi su ngeen gisee ba mu koy sanc mu ne soxeet mu ne soxeet bàyyi fi barab yu xumb yépp dikk ba ci digg màndik mu leen wóor ne dara nekk fa woon lu dul ab àll ak rab laneen nekku fa woon mu fàkk ko ba mu set def fi dëkkam bu sell bi tudde ko turam wu sell wi bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonent bi sori lépp lu yàq ko ak melo moo ko waraloon kon maa ngi leen di fàttali di leen digal dëkk bi nu warmaal ko sàmm ko bu fi kenn def luy nuru po bu fi kenn def luy nuru moy yàlla waxoon naa leen ko fi bu fi kenn naan bu fi kenn dorog bu fi kenn tëgg mhm. tama bu fi mhm. kenn tëgg sabar mhm. nii Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana ko fàttalee bu fi kenn fecc bu fi kenn carte ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko delsiwaat naa di leen ko waxati léegi am naa pas-pas beesu wax ji ngir dëkk bi moom nun sàmm rek moo ci moo ciy sunu warugar lu fi borom dëkk bi di bañ li feeg nuy noyyi danu koy bañle mhm. li mu fi bëgg li feeg ñuy noyyi dañu ko koy bëggle mhm. képp koo xam ne lii ma wax muy xeeti mooy yàlla wala xeeti po yaa ngi koy defit boye boo daal di séenu fa saasa la lay dal mhm. li ñuy defanteeg yow nag teg nañ ci sunu bakkan gis nga ko mu ne ah. jaraloon na ko bakkanam dogu rek waaw jaraloon na ko bakkanam ndax suñu Tuubaa moo ko jaral lépp moo ko jaral lépp parce que bu la sëriñ Touba jaralee lépp. Mm-hmm. sa bakkan sax danga koy attana joxe. ngir sëriñ Touba saxaaba yi defan rek saxaaba yi defan rek. bi jarale lépp jeex na moom man man moom. te murid seen royukaay mooy saaba yi. Mm-hmm. moo tax bëgg gi bëggoon sëriñ Touba. Mm-hmm. moo tax lépp lu sëriñ Touba bëgg. mu am jaral na ko bakkanam. mu ñàkk maanaam mu ñàkk am. dafay daf koy jaral mu joxe bakkanam ngir loola am. Serigne tubaab bi muy bi bi bi muy topp yonent bi bi bi topp yonent ngir bëgg a mel ne am daraje saxaaba ya yonent yonent bi da koo jaralan lu ne lépp seeblaan nag seeblaan noonu la mel si foofu la nekkoon <laughs> mu teg tamit képp ku defati képp ku ko defati daal na la wóor ne musiba ma lay dal du doon moom baatin moom saxir lay doon fasaasa xam nga baatin mm-hmm. maanaam man na nekk ci yow maanaam musibam baatin mën na nekk ci yow ngay dox sa àdduna mu mel ne dafa neex te doo yëg ne musibam baatin mu ngi ci yow waaye musibam saayir mi nag mooy yar ki nga xam ne mooy teg bët ci yow mooy teg bët ci yow loolu la Cheikh Abdoulaye xamoon moo tax mu jëflante ak ñun taalibe yi ci jëflante boobu ndax xam nga euh, nit li feeg li nga koy maanaam li nga koy yare wonoo ko ko mu gis ko ñaare pour mu yaru dëgg dëgg dëgg du yomb tey kii nga xam ne mi ngi koy gis muy def loola muy continuer mm-hmm. dafay jàpp ne kii ci lim nekk mi ngi koy jig mi ngi baax ci moom te fekk mi ngi koy yàqal loo xam ne moom mi koy moom miy yàqule sax xëy na xamul dëgg-dëgg li muy yàqule waaye nag bu ñuy bu ñuy jëflante ak baatin bi dafay baax léeg lañu wan wan ñu saayir bi mm-hmm. ngir ñu mën a tege ci aw yoon mën a tege ci ak njub mm-hmm. te keneen ki bëggoon a def ah. mën a teggi tànkam loola moom la ci Seex Abdul Ahad Mbàkke jublu woon waaye euh, Euh, lépp rek ngir defaral seexul xadim la lépp rek ngir defaral taalibe yi la lépp ngir jubbanti ndax képp koo xam ne mu ngi lay génn ci li yàlla tere ndax li mu doon ni nga ko waxee léegi amu ci lenn lu Seex Abdul Ahad Mbàkke doon tere te fekk ne ku tere euh, suñu borom bi tabaaraka wa taala suñu borom dafa tere ku fecc euh, maanaam tere na kuy kuy kuy sabar maanaam am tëgg moom luy xeetu po rek maa xalaq naa samaawaati wal ardi wa maa baynahuma indi na ko boo demee ci biir wax ji wax na ko wa maa xalaqnaa samaa wal arda wa maa baynahumaa laahibiin euh, wa aradnaa euh, an nataxisa lahwan ah. ala nataxas euh, min ladunaa in kunnaa faa'iliin in kunnaa wax ne at maanaam asamaan ak suuf hmm, ak li nekk ci diggante bi binduñu ko ngir fo yàlla bindu loolu ngir fo maa hmm. xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun hmm. yàlla daf ñoo bind wàcce ñu ci kaw suuf ngir ñu jaamu ko mais bu ñu nekk ci àdduna di fo dañuy nax suñ bopp léegi nag su fekkee ne ki ñu yilif daf ñoo seetaan ci fo moom moom mooy responsable moom moom kilifa ki ñu seetaan ci fo ah. bàyyi ñu ñu continuer di fo te jéemu ca dara kooku moom mooy responsable bi ah. kon bu ëllëgee mooy ah. masuulee bi nga xam ne moom la sunu borom di laaj sa njaboot gi ma la dénkoon naka nga doxalante doxale ak ñoom Cheikh Abdoulaye nag amoon na sa ëllëg sëriñ dajeeg sëriñ Tuubaa mu ne ko njaboot gi ma la bàyyi woon eh, yan tànk nga doxee ñoom ndax danga leen a bàyyi woon ci lu leen neex wala da nga leen doon jubbanti moo tax lépp la ko jaraloon ngir njabootuk sëriñ Tuubaa gi tege ci siraatal mustaqim dëkkub sëriñ Tuubaa bi ñu warmaal ko lépp lu fi yëllu tam ñu bañ ko fee def loolu taxawaayu Seex Abdou Lahad la boo xam ne woon na ko ci dëkk bi te suñu borom defal na ko ci ndam sukkuraan sa maam Thierno yaa ngi ci yaa ngi ci point bu am am solo wax nga lu am am am solo maam da ngaa di alxuraan ju leer nañ nañ ci waxee maam Cheikh Abdou Ahad maanaam maanaam maam loola doxee maam lépp lu neex yàlla rek maam Cheikh Abdou Ahad maanaam maanaam loola ci lay dox yàlla digle ci lay dox waaye lépp rax suñu borom da koo aaye Cheikh Abdou Ahad da koy da koy aaye waaw kon kon bëggal ñëpp jàmm yéene ñëpp jàmm bëggal ñëpp mucc ëllëg bëggal ñëpp maanaam texe ëllëg ak it bëgg waajuram a si Amadou Bamba loolu moo tax li nga wax ne kon si Abdou Ahad bëgg-bëgg sëñ Tuubaa jaral na ko lu ne jaral na ko lu ne moo tax si Abdou Ahad moo tax li ma ne si Abdou Ahad maanaam suñu borom da koo dimbali ba xam ne maanaam si lépp lu mu bëgg rek suñu borom da ko e far xoolam xoolam mboolem yii yëpp mu tere xam nga suñu borom far na ko ci ndax xoola fi ne boo nga dox ba gis Touba maanaam ñu fay ñu fay tux ñu fay tux comme ni ñaa def dem ba ci wetu jumaa ji rajo yi nga dem ba gis kuy tux biir Touba wala ku fay naan wala ku fay def leen wala leen gis doo ko gis wala bu amee ka ngay day nëbb te xam nga lu ñu nëbb moom feeñatul mm-hmm. te xam nga lu ñu nëbb moom feeñatul kon loolu suñu borom dimbali na ko kon yàlla far na ko ca mm-hmm. dégg nga kon Cheikh Abdou Ahad kon maanaam ku am barakatul lisaan ku am barkeb làmmiñ lu mu bëgg lu wax ci làmmiñam wii suñu borom da ko cee far kon loolu barakatul lisaan la Cheikh Abdou Ahad li nga wax ne maanaam royukaay la gis nga gis nga gis nga Cheikh Abdou Ahad ah gis nga gis nga kees yi nga xay ci la ñuy dugal alxuraan léegi maanaam kër goo dem léegi léegi ku am alxuraan da ko wutal ak dencukaay ndax fonk alxuraan ñi ko ñu ko royee si Abdou Ahad dëkk boo dem fi ne gis nga jàng jàng maanaam école yu bari yi ci dëkk àll yeeg yëpp yëpp yëpp si Abdou Ahad maam ñoom ñëpp maanaam ci lañu ko ci lañu ko royee ba ci col yi ñu naan ay colug baylaat xam nga colug baylaat gis nga colug baylaat foo ko solee ñoo xam ne julit xàq na ngi nii murit xàq na ngi nii nitu yàlla dëgg ngi nii kon gis nga col gu yiw col gu baax ñu ngi koy doon ne ñu ngi koy royee ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké na la leer ne colo gi naan colo bàyyi laat wala colo xama sañ sonay bu fu ko dooma fu ko maanaam nit solee rek yow dañ lay dañ lay jàppee ku baax ba pare yow te gis nga ko yooyu yëpp liggéeyam Cheikh Abdoul Ahad la loolu lépp la mu mel ne maam Thierno nag dafa mel ne heure bi xoolu mbax waaye mel ne mi ngi dem xam naa ne kon li ñu wax rek képp ku ñu bëgg a bëgg a bokk ci waxtaan wi da jaar ci 88 628 19 kon alxuraan maam Thierno sëñ Abdou Ahad kenn mënu koo jeexal des na lu bari nag waaye kenn mënu koo jeexal kon Cheikh Abdou Ahad wax ne maanaam bokk na ci ñi dàq bay ci senegal maanaam bokk na ci ñi gën mën a liggéey ñi dàq bay ci Sénégal ñi dàq na bay ci boo xoolee am na tool yoo xay gis na dañ bay Touba Belal ak Touba xama bukki bargaak Touba ak gàdd ba kàdd balooje yooyu yëpp Cheikh Abdou Ahad danaa daan bay maanaam Cheikh Abdou Ahad bokk ci maanaam ñi dàqana bay ci Sénégal kon Cheikh Abdou Ahad ku daan dunde aw ñaqam la ku daan dunde lu leew la ku daan dunde lu leew la kon loolu mën a euh, indi ci maanaam Cheikh Abdou Ahad maanaam ci ab liggéeyam ci wàllu ci wàllu bay xam naa may jégg lu ñuy wootee ci sama téléphone ci rajo lañ nekk képp koo xam ne yaa ñuy déglu rek boo fekkee dañoo bëgg a jot dangay ngay jéem a woote ci 88 628 19 05 su ko defee kon da ñu mën a jot xam naa bu dee ci sama téléphone fi ne wuyu gi du yomb kon képp koo xam ne bëgg nga ñoo jot rek da ngay dugg foofu soo yàlla waaw ni nga ko waxee maanaam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jàmbaar la joo xam ne fonkoon a mbay fonkoon na mbay ndax xam na ne mbay mooy développé am réew mm-hmm. am réew soo bëggee mu développé mm-hmm. da ngay bay xam nga ñun suñu xoolee ci suñu réew mi bokk na ci li ñu gën a biimeel maanaam li nga xam ne moo gën a tax suñu réew mi xaw a euh, dellu gannaaw tuuti bokk na ci ni ñu bàyyee mbay nit ñi dañoo bàyyi mbay woyofal ko lool te suñu borom bu euh, bu fekkoon ne nit ñi dañoo gëm yàlla dañoo gëm yàlla doyloo yàlla suñu borom bi tabaaraka wa jox yàlla seen bopp dem di bàyyi yàlla xam ne ni yàlla dana barkeel suuf si ba danañu am lu ñu dundee du ñu jaaxle waaye saa boo xamee ne jàpp nañ ne maanaam suñu fabee seen euh, gerte wala seen leneen def ko ci suuf dañ maanaam bu ñu koy def dañuy nattale maanaam daaw baaxoon na kon ren mën naa am dana baax kon loolu dafay tekki maanaam tekkiwut ak gëm yàlla dafay tekki na da ngay da ngay takkale kuy takkale nag yàlla suñu borom daf lay seetaan ci sa tàndale ko mën naa am nga dajeeg mu baax mën naa am doo du baax waaye da ngay gëm yàlla da ngay gëm yàlla gëm yàlla googu nag moom la Cheikh Abdoulaye defoon moo tax foo mosaana dem ci dëkkam yi nekkoon naa ci dëkkam boobu ñuy wax bokki baal ga maa nga nekk ca côté ñii bi ak diggante ñii bi mbar côté yooyu la nekk euh, ca côté ba nalee ca penku côté xel koom yi féete ko fa ak daaru sal daaru salaam daaru minam saalum euh, nekkoon naa foofa jàngale naa fa euh, at kon am na lu ma fa xam tuuti mm-hmm. foofa boo demee ay tool yu mag dafa fa Cheikh Abdoulaye defoon jamono bi ma fay nekk nag sax euh, ci jamonoy Cheikh euh, Serigne Sidi Mbacke la ndax jamono yooyu fekk na mm-hmm. Cheikh Abdoul Ahad Mbacke euh, dellu ci boromam ci wetu waajuram mm-hmm. ndax ci atum 2000 la woon muy jamono bi Abdoulaye Wade di jot ci réew mi mm-hmm. waaye boo demee da ngay xam ne fii ki ko sanc fonkoon na maanaam mbay fonkoon na mbay xamoon na it li mbay amee njariñ ni ci nit ki mën a jariñoo waaye ak dundal suuf tuyaaba ji ci nekk dundal suuf maanaam wëlbati suuf rek suuf ci boppam daf lay ñaanal waaw waaw ah. loolu li ci nekk ci ay tuyaaba Cheikh Abdoulaat xamoon na ko moo tax daana dundal suuf si daana bay daana récolter ay ay ay kii yu bëree bëree bëri yoo xam ne euh, daana ci dundal taalibe yi daan kii daanañ ci dund daana ci jox njobootu Sëriñ Tuubaa gi liggéey sëriñ tubaab bi daana ko ci def ndax li ëpp ci lim daan bay sax ah. ci liggéey sëriñ tubaab bi la ko daan def moom Seex Abdul Ahad Mbacké li ëppoon ci lim daan bay bu ci génnee dund bi nga xam ne xëy na taalibe yi mënuñu koo ñàkk dund la ci ëpp ci liggéey sëriñ Tuubaa bi la ko daan def kon dañuy ñaan rek suñu borom fayal ñu ko ci barke Seexul Xadim ah. ci yéene jooju ak taxawaay boobu nga xam ne amoon na ko ci ci wàllu mbay jërëjëf Al Oustaz Mame Thierno kon Seex Abdul Ahad mi ngi noonu foo ko tuddee ñu ne ak a baax foo ko tuddee ñu ne ak ay jàmbaar loolu moom wér na kéng Cheikh Abdou Ahad maanaam ab liggéeykat la woon moom Cheikh Abdou Ahad ci boppam ni nga ko waxee maanaam ku bëgg liggéey la waaye ku jàmbaare la woon waaye Cheikh Abdou Ahad ku bëgg jàmbaar la tamit Cheikh Abdou Ahad bu ruuj masaana jot danaa soññee ruuj yi bu ruuj masaana jot muy dellu ci tool yi daan soññee ruuj pour ñu dellu ci tool yi waaye nag waaye nag Cheikh Abdou ku daan dunde lu leew la xam nga bay xam bay dëgg-dëgg mooy dunde leew Cheikh Abdou Lahad ku daan leew la te xoolal dunde gi muy dunde leew nag moo tax gis na mu mu ciy soññi ñëpp nag mu ciy soññi ñëpp comme ni ko waxee kon lay tegtale lay tegtal ba mooy Cheikh Abdou maanaam bu ñu masaana bay ba ba tool yi pare maanaam ba tool yi ñor li tegtaleen Cheikh Abdou Lahad ku daan dunde leew la Cheikh Abdou Lahad maanaam buñ bu maanaam bu masaan maanaam bu masaan digle ruuj ba ñu ruuj ba bay ba tool yi ñor nga xam ne maanaam tool dugub ñor na gerte yi ñor na ñebbe yi ñor na lépp ñor na daal nga xam ne góob moo ci des Cheikh Abdou Ahad lan lay def day daal di day daal di digle ñu génne àq yàlla ji muy asaka bu mesaan bay ba tool yi ñor ba tool yi ñor leer lépp ñor na Cheikh Abdou la muy daal di digle mooy maanaam ñu génne xàq yàlla ji muy asaka yi xam nga loolu kon mooy mooy dunde lu leew mm-hmm. xam nga kon liggéey ñaq sa ñaq bopp liggéey ba pare la yàlla digle yi la yàlla digle wa aqimu salaata wa atu zakata digle ñu génne asaka si Abdou Ahad daana soññee ci génne asaka yi xam ko loolu ko ba bokkoo ci kon si Abdou Ahad ku daan dunde lu leew waaye na xoolal dund ni mu daan dunde lu leew nag noonu nag daan dund digale mboolem taalibe nag kon li nga wax ne si Abdou Ahad ku bëgg ñëpp jàmm la maanaam ku yéene ñëpp jàmm la moom Cheikh moom Cheikh Abdou Ahad Mbacké moom géej la mëni su koo jeexal da nga ci wax rek waaye mëni su jeexal mëni koo jeexal moom géej la waaw gis nga ko ba tey ndax mas naa ñëw ci ay xar baaxam moom Cheikh Abdou Ahad léegi kon ni ñëw ci ay xar baaxam daa mel heure bi des bëriwul de ah juróomi minute la ci des kon li ci des bëriwul juróomi minute mooy des kon maam Thierno ñu tënk daanaka li liñ liñ dese ci wax moom moo moom moo gën a bari sax moo gën a bari ndax li li indi woon ci ay li li nga ne moom la ñu war a wax fii ci ay ci moo ji saatam ay kiim taana moom Cheikh Abdou Ahad ak ay xar baaxam ci leen toll nii nag ci lan toll wo nii même liggéey ni war na liggéey lépp sax ci bare bare des na bare liñ ko bëgg a leeral des na waaw des na sax des na sax waaye ay xawaari xam maanaam ay xar baa xam ne moom si Abdul Ahad ndax loo ci mën a andi ndax si Abdul Ahad maanaam yàlla may na ko mu nekk koo xam ne ku rafet xalaat la wan ku ku amoon vegu la ku vegu la wan kenn yëbu ko wan borom xam-xam la wan wala nangam nangam ndax leneen ni daana ñëw ci wax ci moom tamit loo xaye du dëgg daa mel ne am na lu daa ne am na lu ko ko daan wax naan li muy wax dëgg ah loolu yëpp ay xar baax la nit daana ñëw ci wax di wax moom te li muy wax dara du ci dëgg nee na ah am na lu mu ci waxoon foofu waaw am na lu mu ci waxoon kon yooyu dama lay bàyyi xar baax yi fekkee ki nga dox ci tuuti rek ay xar baaxam ay xawaari xam ay xar baaxam bu ma saana wax wax ju leer nañ naam laam ñu set rek laa man kon xar baax yi li ci des moom bari na du jeex dañ ci jël tuuti rek dañ tënk xam naa ne al oustaz xam naa comme ni nga ko waxee rek ci ay xar baaxam waaw comme li nga wax noonu rek maanaam nekkoon na koo xam ne saaboo boo mosaano dikk di wax ci moom. Mm. la ngay wax yàlla nekk dëgg. waaye saabooy booy wax rek. Mm. dafay mel ni ci sa euh, wóom yi da ci lay xamee sax dëgg-dëgg ne yow li ngay waxee nekkul dëgg ndax am na benn waay bu mos a ñëw ci moom. di am lu mu koy wax. Mm. waaye bi mu waxee ba bàyyi ba dem. Cheikh Abdoulaye dafa wax mbooloo mi ne leen jëmmuñ yii de bi muy wax dafa xamul ne. Thielé mi mi ngi may wax ne li muy wax dara amu ci te yëgu ko mm-hmm. kon dafay firndeel na rek Cheikh Abdou Lahad lépp loo mos di wax ci moom wala nga koy def ci moom mm-hmm. loola nanga nga sàmmante bu baax a baax ne loola mm-hmm. xam na ko bu baax a baax waaye loolu maanaam xar yi li muy am solo am solo lépp da ngay xam ne maanaam kii doomi sëriñ tubaa la doomi sëriñ tubaa maanaam dafay eh, dana maanaam booy seet mbiram dafay xaw a jël mbirum xar baax ndax lépp saa boo ñëwee rek ni ma ko waxee léegi yaral xafaayaa lay doon waaw maanaam waaw dafay fekk ne maanaam bi nga accès rek yow laata ngay wax wala laata ngay eh, def dara fekk ne moom xam na lépp mm-hmm. xam na lépp ba noppi li xew xam nga eh, ci misaal suñ fàllu mm-hmm. dafa mos a am benn waay bu daan ñëw ci moom naan ko eh, sama soxna dafa ëmb ah. te fekk li muy wax dara ëmb ci mm-hmm. waaye saa bu ko waxee rek suñ fàllu yëkkati dara jox ko ba mujj mu dikk ne ko man soxna si am na euh, gone te yow laa ko tudde sëñ Fallou yëkkati dara jox ko. mu di ko def ba benn bis mu ànd ak benn xale ñëw. ne ko kii mooy Fallou. Mm-hmm. xale bi daal di bëgg a wax foofa. Mm-hmm. sëñ Fallou ne ko doo Fallou waaye doo Fallou xam naa doo Fallou. dafay maanaam sëñ Fallou maanaam ñoom sëñ Touba moo leen préparé foo bokk ñu ne ci sëñ Touba. Mm-hmm. kooku. maanaam xar baax ah. suñ ko waxee ci yow yoo xam ne maanaam ay kii la ay kiimaan yoo doon def da ngay xam ne lii maanaam lu war a mën a nekk la lu war a mën a nekk la xam naa nag xar baax yi dama la koy bàyyee bu baax a baax eh, wax rek gannaaw waxtu wi li ci des bëriwul ah, ndax lii itteel na ma lool ci ah. waaw ci bennoo gi nga xam ne bennoo woon maanaam daana ko benn la jullit ñi dafa doon lu ma itteel maanaam ñu jàllale ko al oustaz maam Thierno ah. mhm. ndax euh, daf daan soññee lool ci bennoo. daana soññee lool ci benn bennoo. ba tax daana wax sax ne sëñ Touba dafa dénkoon murid yi ak xaadir ak tijaan yi ne leen euh, def leen alquran muy seen kër sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa di miir bi koy wër. ku taxaw ci bitti di leen woo bu leen ko wiyu seytaane la kon gis nga njobootuk sëriñ Tuubaa gi dañoo fonk woon fonk woon bennoo bëgg murit bi di wax ci euh, tijaan bi wala xaadir bi leen waaye mës bëgg tijaan bi di wax ci murit bi wala xaadir bi di wax ci keneen ki kon dañoo bëggoon bennoo ndax lii alquran a innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum mm-hmm. euh, kon yii bokk na ci li nga xam ne sëriñ tubaa dénkoon na ko murid yi ak tijaan yi ak xaadir yi moo tax sëriñ Sidi Muxtaar bi mu ñëwee feddali na ko sëriñ Muntaxa it gën na koo dëgëral ci misaal it euh, sëriñ tubaa euh, Cheikh Abdoulaye daana misaal euh, murid bi ni mu war a mel nee na murid dafa war a nekk ku gore maanaam daa war a yor melokaanu gaynde su wéetee gore ah, jeex na su wéetee gore ba tey du lekk lu lewut Mhm. murit wërta lekk lu lewut mhm. kon mu mel ni mbokk yi li ñu préparé woon lépp ci waxtaan euh, dafa mel ne des na waaye nag beneen yoon yal na ñu fi yàlla bàyyi ñu yàgg fekke rek te suñu borom taas ñu ci barkeb jëmm ji ñu doon waxtaane mhm. di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rajo bi ñu toog di ko waxtaane it ñoo ngi ñaan ci kattanu borom bi tabaaraka wa taala ci barkeb jëmm ji ñu doon waxtaane mu àgg foo xam ne kawe na njortum borom kër gi ak mboolem ñu fi liggéey ñëpp ñuy siyaare sëriñ du Diop Thiat bu siyaar bu baax e, di dolli rek di fasante ak moom kóllëre bu baax a baax di ko ñaanal ci këram gi lépp lu ci yéene rek yàlla na ko yàlla matal ci barke Seexul Seex Abdul Ahad e, suñu technicien e, bu jigéen bi ak bu góor bi yëpp waaw soxna Ndumbe ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax liggéey bi ni nga koy defee am na solo wax dëgg yàlla amuñu benn jafe-jafe ci ni ñuy tëralee waxtaan wi suñu Assane maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di kontaan ci yow bu baax ma dëgg yàlla yàlla daf ñoo boole te boole googu yaa ngi koy gën a dëgëral kon yàlla na ko yàlla gën a saxal di ziare suñu mag jooju wootee di suñu màggat di ziare waa kër gi yëpp di ziare suñu yaay ja di ziare suñu soxna yi ak suñu doom ya fa nekk yëpp waaye di ziare sama waa kër di ko tàmbale ci sama waajur di ko ziare bu baax di ziare sama soxna ya fa nekk ak waa ñoom ñëpp nag ñu ngi déglu xëy na euh, kii wu woote moo leen jàpp xam nga rek jamono ji fi mu toll waaye ñoom ñëpp am nañu yéenay dugg ci kër gi. Mm-hmm. ñu ngi ziare ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf al oustaz maam Thierno Thiam kon mu mel ne kon loolu lañu ñu amanti waxtaan kon wax kon liñ doon bëgg a wax lépp xajut ci waxtaan ndax boo xoolee kon xawaari xëy si euh, si Abdoul li ci doon bari na lool lool lool lool dañoo commencé woon rek dugg ci xarbaax yi rek ci lañ commencé woon dugg waaye jotuñu cee wax dara waaye xarbaax yi nag moom war nañ cee war nañ cee dox bu baax baax ba nit ñi xam Cheikh Abdou Ahad ay xarbaaxam nag am na lu ñu ci indi woon lu baree baree bari waaye ginnaaw heure bi jot na moom moom dañ koy leb rek ba beneen yoon xarbaax yi indi woon nañ ci yow am am solo sa xay maam Cheikh Abdou Ahad maam ay man ay xarbaaxam la ay kiimtaanam la indi woon nañ ci doo am am solo waaye dañoo dugg ba ci fi xarbaaxee rek heure bi jeex maa ngi bëgg a laaj tamit maanaam diggante si Abdou Ahad ak waa kër sëñ Touba yi loolu war nañ cee waxtaan si Abdou Ahad digganteem ak waa kër sëñ Touba njabootu sëñ Touba gi loolu war nañ cee waxtaan tamit war nañ cee xuus war na laaj ma màggal si Abdou Ahad nan lañ koy màggale si Abdou Ahad borom alquran borom xasaayit moom ak màggalam nan lañ koy màggale wara nañ cee dugg waaye na heure bi jeex na yu baree bare bari war na sant Cheikh Cheikh Sidi si Abdou Ahad ci li naan mujjee pusa bi mu riir mboolem naali fi Cheikh Abdoul Ahad bàyyi woon Cheikh Cheikh Sidi Cheikh Sidi Cheikh Abdoul Ahad maanaam lépp rek maam da koo yeesalaat da koo yeesalaat ak mboolem ay rakkam yépp loolu indi woon nañ ci lu baree baree baree bari ci li lépp la xëy Cheikh Abdoul Ahad maanaam bàyyi woon na ko fi wala mu naaloon bàyyi ko fi Cheikh Sidi Cheikh Sidi Cheikh Abdoul Ahad maanaam dafa maanaam dafa dafa beesalaat loolu dafa beesalaat loolu nga xëy li naa mujjee pousse bi mu réer wala mujjee ko mu ràpp kon li fi Cheikh Abdoul Ahad bàyyi woon lépp dara rëpp ci dara raafu ci kon loolu dañ cee war na leeral lu bare bare bare bari dugg foofu bu baax a baax waaye heure bi nag ci boppam maanaam moo ñu moo ñu jot nag waaye kon maam Thierno kon waxtaan wi am na so maanaam sponsor yi ñëpp rek. waaw ñu ñëw jàpp ci kër gi. sponsor yi am looy publicité wala looy kii. waaw yi nañ ñëw jàpp ci kër gi ku am looy publicité ak yëpp looy yëg léeg. waaw ah. yooyu nga ñëw fii ndax yaakaar naa képp koo def doo rëcc doo ko rëccu. Ah. kon ñu ngi woo ñëpp rek ñu ñëw ci Bawol Média. indi fi seen i publicité ak seen i yëgle. ñoo ngi taxalu fii kii leen doon defal waxtaan yi tey mooy euh, seen mbokk al oustaz Hassan Diop feggoog al oustaz maam Thierno Thiam def sax alxames bu ne ñëw indi leen benn tomb tey ñu ne waxtaanee jàmbaar ju màgg ju tedd joo xam ne day tuuti lañ ci indi tuuti lañ ci waxtaan waaye li des moo gën a gën a bari ndax xar baaxi Cheikh Abdou Ahad ak i mujisaat ay kiimtaana jeexut waaye kon ñoo ngi taxalu fii kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala